asbil soo too ree aslih oo sirxu yore bi laki wa barakaatu bokki julit yi bokki taalibe yi rawatina ahlu xasida ñiy jàng xasida di ko yëkkati di kuréel wala ñiy jàng xasida di ko benn bennal wala ñiy jàng xasida ñu leen di aw mu nekk fédération bu lëkkaloo ci daayira Mawaahibu Naafi ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jataay bii ñu ngi ko amale fii ci kër sëriñ Touba gi nekk ci jumaa ji li sabab jataay bi nag moo di yëg-yëg te ku ne xam ne murit ci yëg-yëg li lay doxee Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha moom la sunu borom dencal naalub sëriñ tubaa bi mujj te mooy lim waxal boppam. bil Moustapha li banaa xuduusu madrasatan biha yasulul aza wal jahl wal kabadu liggéey boobu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké naaloon na ko Serigne Mbacké Bousso nee na bi Serigne Touba di dem yett rek la fi bàyyi màggalam gi jumaam ji ak université bi loolu nag moo tax jàngkati xaside yi bis bi Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa woote woon muy la 11 août de bis boo xam ne. mbooleem kuy jàng xasida daja ngi fi moo xam nga di ko durus fay ñu ci nag pay goo xamante ni bii pay féeteetu ko kaw teral mbooleem jàngkati xasida yi wax na isa katabtu ihtasa arsal baax yi wa sabahat malaayikut tibaax yi ki nga xam ne bu jëlee xalimaam di bind malaayika yi dañuy sabal aras di jaayu kookee nag tey jii moom la jàngkati xasida yi bëgg a delloo njukkal moo tax ñu daje ci jataay bii am yëg-yëg ne bi ñu dajee ci bisub xasida bi daal yëg nañ ne defaguñ dara ci université bi te sëñ Touba teral na leen nag ci barkeb xasida yi moo tax ñu fas yéene daje fi woote ko ngir kenn ku ci nekk saw ñàq dem daje ci ñu jébbal ko sëriñ Touba Cheikh Mahamadul xaa danañ jox kaddu gi sëriñ Abdou Lahad Diouf mi nga xam ne moo yore seen kaddu yor communication bi ba noppee danañ jox sëriñ Ndiase Ndiaye mi nga xam ne mooy wax ci turu mag jàngkat yu mag yi ci turu sëriñ Fallou Ndiaye su noppee danañ jox sëriñ Khadim Gueye sëriñ Abdoulaye sekk moo fi waroon a teew waaye bu fi teewee mel na ne teew na fi wax ci turu mbooleem ndaw ñi su noppee danañ jox sëriñ Ousmane baay su noppee ñu jox sëriñ Moustapha sekk moo wooy waa Thiès ak Ndakaaru ak ya ko wër. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila sunu sëriñ sunu yaakaar sunu bàyyi ñun jànkati xasida yi ndax moom moo waxal boppam ci ne ñooy ay xaritam te ci ñun la bokk. muy Cheikh mun taxaa di ko yàgg ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te may ko ak wér ci barke borom Touba. ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci jataayub tey bii fas yéene ci kàddug mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk suñ ginnaaw ak ñi nga xam ne ñoo dend ak man nii ñu dénk leen wàllu communication nga xam ne lii xew ñun ñoo ko war a jàllale ba nit ñi xam lan moo xew ñu ngi wax ci seen tur loolu mooy lan mooy jànkati xasiida yi ñoo am pas-pasu am benn li tubaab di wax objectif muy benn pas-pas mooy dajale seen àddiya ba mu nekk lim bu baree baree bari ci diir bu gàtt balaa yàgg li fi ak màggal ñu yot ko ki fi nekkal sëriñ Touba muy sunu àddiya ju jëm ci liggéey bii nga xam ne moom la woote jëmee ko ci université bi te nga xam ne ñun ñoo ca waroon a jiitu ñëpp loolu mooy woote bi looloo ko waral loolu nag wowuñu kii bàyyi kaa ñu ngi woo képp koo xam ne jàngkatub xasida danga bu nekk ci yoonu murit yaa xam yaa nga France yaa xam yaa nga Espagne wala Amérique wala asi ba Arabie Saoudite bàyyiwuñu kenn ñiy jàng ak ñi leen di aw yépp lañ boole sasandoo kenn ku nekk jaayante li gën a néew ci sa poos mooy ab junni ku man téeméeri junni baax na ku man million baax na waaye li gën a néew nga xam ne moom mënta ñàkk mooy kenn ku ne joxe ab junni te mu bañ a yàgg loolu nag sàkkal nañ ko ay ndaw yu koy saytu am na ñoo xam ne ñoo ñooy coordonné loolu ku mel ne sëñ Maam Mor Kayre ak sëñ Mbaye Lo ak ñim ko àndal am na ñoo xam ne ñoom la ñu dénk itam wut nañ ay bolog yoo xamante ne bii ne ay rosi moo ca ne képp koo xam ne joxe nga sab junni dañ lay daggal sa rosi nga yor sab rosi rosi yooyu itam signé nañ ko signature yu jafe def nañ ci ay kase képp koo xam ne gis nga benn waay bu yor ay bolog ak si ci yow nga xool gisoo ci ay tampon ak signature xamal ne loola moom ca kooku la jóge jamono moo naqari te soppeeku kon na leer ñépp ne Russie yi jaar na fa mu war a jaar def nañ ci ay kase def nañ ci ay signature yu leer communi communiqué bii ñuy communiqué it fas nañ yéene mu dem ci sit internet yi yi nga xam ne war na faa dem dana dem itam ci groupe WhatsApp yi nga xam ne moo jëm ci daayira yenn yi ak mbooloo yenn yi li ci des sunu téléphone fu mu yi danañ ko fa àggale li ci des ñi nga xam ne mënuñoo ñàkk jóg dem ca ñoom danañ sàkk commission bu taal oto dem ca ñoom waaye daal li am solo ba am solo mooy woote bi na ñëpp xam ne du lenn lu dul dajale suñ ñàq yót ko sëñ taxaar loolu nag bëgguñu kenn gis ci boppam wala mu ñàkk cee gis boppam beraluñ ko mawaahibu bàyyi lam yëpp du wala kalaamun wala allah min kulli karimin képp kuy jàng xasida ak ku lay aw yéen a bokk loola ndax sëñ Saali waxoon na ne xasida dafa mel ne ñanaaw ñi koy jàng ñooy laaf yi ñi koy déglu ñooy donko yi kenn mënta dem bàyyi moromam kon loolu moo waral woote bi ñu ngi woo ñëpp di soññu ñëpp waay waay kenn ku ne xam nga ne bisu xaside bii weesu yëg nga ci sa bopp mbégte moo xamante ne bii ne boo mënoon dagg sa bopp sax jox ko sëñ Muntaxa da nga ko def bañ mënut loolu nag li ñu man mooy jàngkat bu ne fanaan nga ci baas ñuy jël ay junni di la ko jox ba tàyyi di la teral ngir sëñ Tuubaa xaside yi kon nag loolee nañ ca jaayanteeg sëñ Tuubaa li mënta ñàkk ba mënta ñàkk mooy ab junni jànqat bu gis appel bi daal na waajal ab junneem fu mu ko jaarale ba mu agsi moom incha allah dana leer nañ bu neexee yàlla kon nag ñi ngi soññ bu baax a baax sëñ Mamour Guèye ak sëñ mooru mbay ñoom ñi nga xam ne ñu jiite wàllu bolog yi ñu mën ci yaatal ko ak tasaare ko nañ ko def jànqat bu gis appel bi itam na nga xam ne yaa ko war a jottali sa morom kon communication bi lu mën a yaatu la kenn ku ne mën ngaa doon sa communicateur bopp incha allah ñi ngi ñaan yàlla mu dooli ñu kàttan ak ndimbal gën yokk poos yi ay xéewal ba kenn ku nekk nga xeeb junni def ci ay million ci barke bi sëñ Touba te yàlla yàggal fi sëñ Muntaxa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd muy nuyoo lislaam te moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla nañu yàlla defal yoolu nuyoo ak yoolu delloo nuyoo defe naa ni jataay bile ñi jàkkaarloo ak mbooloo mi dinañ ci ràññee ñu bari ñoo xam ne ay baykat lañu ci toolu sëriñ Touba yi maa muy xasaayidam yi ñooñu nag duñu tudd tur ñëpp waaye ci turu sëriñ fallu njaay jànkatu xasaayid bu ñu ko tuddee rekk yóbbaale na géew jànkat yépp ci kàddoom it la ñuy waxe ci mbooloo mi daje di mbooloo moo xam ne du ab daayira bu féete fenn képp kuy jàng xasaay di sëriñ Tuubaa yi mbaa nga koy aw ñépp ci lañu bokk amul distinction amul séparation képp kuy jàng xasaay di sëriñ Tuubaa ci Sénégal biir réew mi ak bitim réew ñépp ci lañu bokk loolu nag dañu ko teg ci mag fu mu newul ay waxam moo ko fa nekkal kon xaadimu rasuul xasaayidam yi moo di ay waxam waxam joojule nag màggal gu ñu koy màggal ak fas yéene delloo njukkal ki nga xamante ni mooy xalifatul am li tariqatil muridiya muy sëriñ Muntaqa Mbàkke ban delloo njukkal mooy ku ne xam na ni siiw na ci adduna bi lu mu taxawal muy université boo xam ne wàllu xam-xam moo ko tax a jóg te xam ngeen ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni li kulli shay'in tariqun wa tariqul janna al ilmu lu mu mën a doon lu ne am na yoonu fa jëm yoon wi jëm aljanna nag mooy xam-xam sëriñ Muntaqa yéene ñëpp jàmm yéene leen ngërëmul sëriñ Touba ngir bëgg gi mu bëggoon xam-xam tax mu taxawal université bile waaye nag ñun ñi nga xam ne ni dañuy ñuy tudd ci xasiday sëriñ Touba yii war nañoo sant yàlla bu baax bi ñu yàlla dëppalee ak jamonoom xalaat bii feeñ ci ñu àndandoo dajale suñu wërsëg teg ko ci loxoom mu def ko ci bëgg-bëggub sëriñ Touba boobule ndax xam ngeen ni jànkatu xasaayid yi mbooleem ku bokk ci sëriñ Touba rekk jànkatu xasaayit mooy sa ngànnaay li ci gën a am solo nag mooy kii ñu ko àndal moom daf noo yëg yëg mooy lan da koo teg ci hadis hadis bi dafa wax ni wala tusaaxib man laa yaraa laka maa yaraahu li nafsihi bu leen ànd koo xam ne ni mu gisee boppam gisewu la ni te sëriñ Muntaxa ni mu gisee boppam rek la gisee jànkati xasida yépp noonu moo waral màggalu Tuuba siiw na ci a itéem ak galfanam lépp du tee mu dikk toog jataayoo ak jànkati xasida yi ñuy jàng mu ànd ak ñoom di yàllu ca suuf waaye di déglu lañuy jàng boole ko nag ak yëg nu yëg goo xam ne teraanga ju yaatu ju mu ñu yéene ak ju mu ñuy defal kenn ku ci nekk yëg na ko ci sa bopp su ko defee nag kon soññee bi weesuwul mbira ngi nii moo xam ne du mbirum kenn rek mbirum ku bëgg a jariñu ci xasiday Serigne Touba yi la ku ci bëgg a jariñu képp koo xam ni kii da ngay déglu xasida wala nga koy jàng war ngaa xam ne wenn bayit wi war naa dalal sa xel muy xasiidati Sëriñ Tuubaa waxul xasaayidi de xasiidati la wax genn xasidaam gi faa xat xasaayidal kiraam wali taqoodu abadan xayral maraam mbooleem xasida yi ñuy woy di ko jëmee ci tagg suñu borom tabaraka wa taala ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko contrôlé ba gis ya ca gën a tedd nee na genn xasidaam gii moo kawee yooya bokki jullit di bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare noo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di ñaan Cheikh mun Muntaqa sun borom yàlla na ko fi gën a yàggal lool te wéral ko yéeneem yi mu am ci sëñ Tuubaa yàlla na ko yeggale ba naal yeneen i naal yeggale ko noo ngi am mbégte bu baax ci jataay bii ñu toog di woo ci woote ci turu jànkati xasida yëpp waajtaayu bis boo xam ne dañ cee bëgg siyaare Cheikh Mahamadul Muntaqa yóbbul ko sunub liggéey ci liggéey bii nga xam ni moom la taxawee te muy liggéey bu ko ñor muy liggéey boo xam ni bàyyiwu ci kenn ñëpp la ci woo nu am pas-pasu dem yóbbul ko sunu addiya di woote ci loolu nag ngir fas yéenee dajale mbooleem lañu am lépp def ko ci woote boobu moo ñu tax a toog fii ngir fas yéene képp koo xam ni yaa ngi ci xasida ak noo ci mën a nekke ñi ngi lay tàllal loxo bëgg nu ànd lépp defandoo lépp teg ko ci loxoy Cheikh Mouhamadul Mountakha mu tegal ñu ko loxo ci Sëñ Touba kon ñu ngi ci woo ñëpp ni ñu ko waxee noonu rek la demee li ko tàmbalee ci junni ba ci million mbaa téeméeri million lu waay am te sëñ Tuubaa jaral kooku na ko ci def ñu ngi ci woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe yi góor jigéen mag ndaw képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci xaside yi ñoo ngi lay woo ci sunu bis bi nga xam ni amul lu dul moom. ndax bis la boo xam ni sëriñ Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee moom rekk la daal di jëkk a feeñal te lenn ëpp ko doole nag muy barabu sàkku xam-xam ñoo ngi ciy woo góor jigéen mag ak ndaw jànkatu xasida bàyyiwun kenn ak noo ko mën a jànge ak foo ko mën a jànge ak jàngin woo mën a yor rek ñoo ngi lay woo bàyyiwun kenn ñoo ngi ciy woo nag kilifa yi nga xam ni suñuy wëllëre lañu tanu ràññee leen ci bëgg xasida ak bëgg xasida den ci lim ñaar képp di leen war ni tàllal na leen loxo ci suñ bis bi muy sëriñ Amsatu Suaybu ak sëriñ Murtala Falilu bis bii kat ñun moom rek la ñu am te sëñ Bala daan wax gor soo lebal ngor daan yàlla naa dund ba fekk sa def ci sama bakkan ndegam ñun yéen rek la ñu am te jànkatu xasida yi amul lu lii ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwun kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah. barke borom Tuubaa doole xasida yi ñu ngi ziyaare ñi ni teewlu ñëpp tàmbalee ko ci sangab tedd bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Serigne Touba yëpp. Euh, di ñaan yàlla liggéey bi ñu sumb te di ko naal muy liggéey bu nga xam ni wax dëgg yàlla kenn mësu koo xalaat waaye nag woote bi sëriñ bi woote woon nga xam ni daa bokk ci moo ji saati sëriñ Tuubaa yi moo waral tey mu jeexital bi kon ñu ngi sant yàlla suñ boroom bu baax di ci soññ képp kun bokkal xasida yi ak boo man di nekk ci senegal nga bàyyi ko xel moo xam jànkatu xasida nga moo xam dangay aw jànkatu xasida moo xam da ngay soppeeb jànkatu xasida ak foo mën di nekk noonu mën di dundee xasida yi rek la ciy woo te xam ni liggéeyub sëriñ Tuubaa la lépp ci sëriñ bi lay dellu kon ñu ngi ciy soññ ñëpp rawatina région Thiès nga xam ne fa la ñu bàyyi ko teewal leen fii ci njiitu sëñ Njaga mi nga xam ne mooy jiitu mooy daayira mooy bu naafi ak mboolem ñun ko seqal ñëpp waaye nañ ko waxee rek lii moom ajuwul ci benn daayira maanaam jànkati xasida yi nekk ci àdduna bi yëpp fu waay nekk ñu ngi la ciy soññ ñu bàyyi ko xel li ci am solo nag mooy addiya ji ñu far lu ci mu gaaw ñëw ndax Serigne Touba lim nu defal ah, romb na loolu kon war nañ ci góorgóorlu lu baax a baax lu ci waay man nga def ko ngir Serigne Touba na lu nekk ndax sëriñ bi lim nu defal mun nu koo fay kon nag yu mel nii rek boor boobu mënut te fay nag dangay ngay def loo am rek tàbbal ca. ko ñu ngi sant bu baax jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi woo ñëpp bàyyi wun kenn jëre ngeen jëf Sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwér barkeb xasida yi jërëjëf yaakaar naa ne kàddu yi leer na ci ñi nga xam ne ñoo ko jël waaye ñi koy dégg leer na ci ñoom képp koo xam ne yaa ngi déglu xasida ab jàngkat di ko jàng ak bu mu mën doon cosaa yoo ko dégg mu neex ci yow xamal na junni war na la képp koo xam ne yaa ngi yëkkati xasida ñu jox la addiyee sëñ tubaa junni war na la képp koo xam ne njëriñul xasida bëgg nga ko junni war na la kon yaakaar naa ne woote bi jërta soril jërta guddal képp kuy bëggee xasida wala ngay jariñu ci xasida tàllal nañ loxo tey sàkku sab junni ñi nga xam ne nag dañ daan teral jàngkati xasida yi nañ xam ne xasida yee mat a teral kon seen teraanga jooju nañ ko andi ci woote bii ñu jébbal ko Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa sunu aajo yëpp faju wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والإحسان